asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal rawatina mbokki bawal ak Jurbel gi nga xam ne fi la ñu fekk baax baax fekkuñu fi tey ñu ngi leen di présenter émission boo xamante ne bii ci fii ci VFtv mooy si télé askan wi di suñu télé rawatina ñun waa Jurbel mu tudd émission gan gi ñu koy door tey ngeen ànd ci ak seen mbokk seen xarit ki ngeen xam muy Baye Serigne Gningue le grand tambour major moom moo leen di présenter émission bi ñuy wax gan gi. tay nak may nuyu senegal gi yep way di nuyu Jurbel suma ne Jurbel nak ku ne xam ne traga yag na fi waye wef TV gàcce ngaalaama ndax nak manon na nek fenen waye fi rek la wara nek motax fi la nek ñi ngi nuyu góor ak jigen mag ak ndaw ku gàtt ak ku njool ku xees ak ku ñul ñi ngi nuyu askan wi yep tay nak sen gan dalal artist bu mag bu ñuy wax xali job di suñu dom di suñu rak di nit ko xamantene bi ku yalla baxal la Fi ci ndiaré mu nek fi di bay waram xali ñi ngi lay nuyu waaw salaamaaleykum maa ngi ziare ñëpp di bëgg ñëpp Baye maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ginnaaw ba nu sant yàlla nag di sant suñu ñaari waajur bu baax ku ne xam na ne nag njaareem ñun fi leen a juddoo fi leen yoroo lii nag nekk na loo xamante ni suñu lu kawe suñu njort la maa ngi nuyu góor mag ndaw di ziare ñëpp di nuyu waa sama waa kër ga ma bàyyi di leen wax ne seen doom a di nuyu waa génération saf gépp ñuy waa Diourbel bi sama papa Baara maa ngi koy bu baax di ko jox wàcc waayam ndax ku ñu ñeme ku fi ñeme dañ laa dee. Mm-hmm. waaw gannaaw yàlla nag lii lépp moo ma ci teete ba yàlla def lii lépp de am may ñaan yàlla jàmm yàgg fépp Diourbel maa lay nuyu di bëgg ñëpp nag leen wax ne émission bi rek ñu ngi koy rafet lu bu baax ndax lii day dundal aaru Diourbel na ñun amuñu fenn fu dul Diourbel fi lañ am fi la di tiitaroo li la def cee baax ñu nag ay xale lañ rek nekk Diourbel di liggéey comme ni ko Baye waxee. ñoom ñoo nekk suñuy xalifa ñoom ñoo nekk seeni rakk ñoom it ñi ngi ñi ñi ngi ñuy jàngal aar du ñu wax def leen léegi def leen léegi te bu la neexoon bañ la cee fekk ñi ngi nuyu ñëpp nag di ñu ngi la dalawaat kàddu yi ba si kanam xaali ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di sant bu baax a baax a baax a baax suñu yaakaar tey ëllëg muy Serigne Touba di sant Cheikh Anta Mbacke di sant suñu bunt ci waa kër maam Cheikh Anta muy Cheikh Mor la ku ne xam ne ne tey li nga xamante ne bii moom nga jug opté ko pour liggéey ko lu yombul ar dara yomb ci muy lu metti wax deug yalla ku ne xamna ne nak li ñor ak li nu gëssam bokkut lo don la waye ginnaw bi ko donné ba pare no fas dund ar comme dama la ko waxé rek man dama jullu fekk sama baye na ci baara job ko xamul fi jur bel deg nga façon trafe bu ne indi nako fi ñun nak ñi ngi ba mag mu jox may sabar di ma teggloo yow it nga ne sama nijaay bu baax nek sama grand nek sama khalifa nekk ak ñun fii Diourbel di ñu conseil bu la neexoon mu mën la cee fekk ndax bu la neexoon nga ne maa yow ñoo bokk liggéey bi waaye defoo lu ma xew la yaa cay jiitu bët ki dem ba njaaree rek wane ko may kontaan ci loolu noonu ci rafetlu bu baax man rek mënuma ñi may àndal ñoo may dooleel waa génération saf gépp maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp waaw ni ñu ko bëggee mooy comme ni ngeen ci def rek topp ci seen ginnaaw rek ba yàlla defal ñu lu kawe sunu njot ñi ngi Jurbel di liggéey rek dal xëy sotti mm-hmm. ay gone maa ngi nuyu nag géwél yi nekk mel yëpp maa ngi jégalu nag di leen nuyu ñoom ñëpp ku mel ne Baara Mbaye sama xalifa Daouda Diouf Guèye jaabo juuf Diouf seen Sène Mortala seen sama xarit sa doom nday maa ngi koy nuyu ko jox wàcc waayam sama waa groupe nag aw ma maa ngi nuyu ñëpp sama waa groupe ba sama ménager sarax mu ndaw mm-hmm. moom su ma waxee sarax rek mel ne ne wax naa ñëpp mm-hmm. maa ngi nuyu Ibou Samb sama papa sama xalifa sama yaayam mi ngay maa ngi koy nuyu bu baax ko bëggee mooy nekk Jurbel di liggéey rek hmm. ay gone lañ dara xëyit sotti nag hmm. waaw ñi ngi sant yàlla bu baax sotti xaal yi loolu dëgg la waaye ku ne xam ne ne mbir tamit ku jug di ko def am na loo bëgg def ko ci am na foo bëgg yóbbu am na foo ko fekk am na foo bëgg a yóbbu te itam mbir mi yombul te nit ku ci nekk am nay projet jamono jii ñu toll dëgg dëgg dëgg lan mooy say projet ci aar bii nga xamante ne bii ci la ñu nekk tey di ko def wax nga dëgg aduna mo deme nonu mais sama projet man ci art moy yalla defal ma jamm nak ak sama ñaari waajur ci art nak laa na ma yóbbee leen màkk ñoom ñaari ñëpp maa ngi koy ñaan ci yalla yalla ma defal jamm ci art bi ma nek di ci liggey mm-hmm. ci laa bëgg yobba mak ñom ñaar ñep da wax ci sama sama sama ki bu baax mm-hmm. sama njabot mm-hmm. ndax ginaaw yalla art la yaaka ndax aar def mom la bëgg sama xol su ma soñoon nag moom yàlla daf ñuy defal jàmm defal ko géwéli Jurbel ñëpp ñëpp am jàmm mm-hmm. ba li ma namm ci aar yàlla defal ñu ko mm-hmm. maa ngi bëgg maa ngi leen di ziar mm-hmm. kenn tey am nga rafetlu ci aaru njaareem ci aar bi nga xam ne moom lañu ñu bokk ñun ñëpp di ko dund bu fekkee ne tey am na lu la ci neex dañ da nga naan lan moo la ci neex tey lan moo la neex tey ci aaru Jurbel waaw ba xam nga aaru Jurbel moom dafa dafa doy waar Jurbel metti metti hmm. neex na neexul hmm. ndax tay ji kenn momu fi kenn hmm. te yaakaar naa ne jurbel moom ni ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comme ni ngeen ko defee rek la la ah man moom xaali man lan laa ko bëgg defee topp ci seen ginnaaw ndax bu la neexoon bàyyi am na yoo xamante ni yaa ngi koy dund ak man te bu la neexoon bañ la tey fekk sa doom la sa rakk la sa xarit la laa di nga yor mayal battali mais am na ci loo xamante ni neex na ma torop ci gewel jaaré mi man dal ma defal acte bo xamni daf ma neex torop na man na xawma ñu ci dess mais man li ne ci man lay wax ndax barki dem moo njaay dama xewle ñom ñepp ñu ñew amut xiro amut ngaayo amul dara ñom ñepp ñew ku na def ba ne saay dem lool nak la bëgg mu continuer bel ñu ñepp ñu bokk nday bokk bàyyi ndax fi ñu ñepp ñoo bokk deret ji de ñu ñepp ay doomi géwél la tay buñ la doon wax amna na lu la lu la naqari ci aaru jurbel looy wax waaw munta ñàkk xiiroog ngaayo mo metti na ma torop xiiroo bi moom bàyyi doon na loo xam te ni neexuma te bëgg bëgguma yéen mag ñi ngeen di xiiroog ŋaayoo ñun xale yi bëgg a jug tamit xiiroog ŋaayoo loolu bu ñu ko defee njaareem di sotti te ñun ñëpp ñoo fi leen dëkk mais damaa bëgg ñun ñëpp ñu delloo ci suñu xel xam na yàlla rek mooy buur kenn moomul dara fii ku sa géer xewle dangay ngay tëgg li ma war a lekk wala bàyyi li nga war a lekk wala di daadu juuf war a lekk mënoo ko koo xañ man mënuma ko koo xañ yàlla mooy jox ñëpp man su ma sañoon Jurbel ñun géwél dañuy bokk nday bokk baay hmm. kii tegee fii ñëpp dem seetaan yi hmm. jàpp ba mu neex hmm. mais damay gis bu kii tegi fii sax kii du dem kii nangam ak nangam mais loolu man rafetlu ma ko man daal su ma soñoon daal Jurbel géwél yi nekk dañuy bokk lépp bokk nday bokk baay loolu daal moom xaw na ma tee métti moom loolu itam xaalis ba léegi ñu continuer ànd ak émission bu mag bi ñuy wax seen gan seen gan ñu koy defee fii ci WF TV ñu invité tey artiste bu mag muy Xaali Jóob miñ koy waxe di doomu kër gu mag di doomi njaareem di xale bu yalla baxal di xale bu man métiem xali tay buñ la doon wax kan moy sa idole ci ar loy wax wa bay laaj nga mo question bu ma neex vraiment kenn koy ne sa xol rek nga mëna a wax mhm. kenn momut kenn mhm. ta yaakaar na ne fii dara xey soti mhm. mais man bay ar bu day ar jurbel ki sama idole bay serigne ñi moy sama idole ar jurbel parce que tamit ginaar kenn gënu mhm. te yàlla def na bokk naa ñëpp seq ak ñëpp jàmm mhm. aw ma kenn xa am ma kenn ak nu mu ko ci waxete noonu aw ma kenn xaar ma yàlla waaw mhm. ñëpp laa amal jàmm ku ma ci gis damay def comme ni sama bopp mais Jurbel nag moo doon loo xamante ni dafa xaw a doy waar suñu côté mais man nag maa ngi sant géwél yëpp sama papa yeeg ya. ndax ñoom sama samay papa la ndax ñoom ak papa sama papa ñoo nekkoon di def aar waaw suma suma juumut li nga bëgg a wax mooy parce que wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo bokk li ñu bokk waaye nag benn nak ci benn xew la xew la daanu ay nitam lañ nit ku nekk sañ na ne diw sama royukaay moo meboni neex mais diw sama royukaay ba noppi am na lu la neex ci diw moomu lu tax nga bëgg roy mi nga sa idole lan mo la neex ci Baye Serigne ba tax nga visé ko mu doon sa idole wa Baye laaj nga ma lo xamanteni luma neex la parce que sama dom moko ko bëgg te yalla rek tax mhm. sama njabot bo ñoo bëgg Baye Serigne te yalla tax xawma mhm. xam na ko xawma ma ko mhm. sama dom buy nelaw sax Baye Serigne Baye Serigne ñëw na lay wayantoo ay da sama rak bëgg la te yalla rek tax dara taxut ma bëgg la saw fi ak sa yo ak fi nga yobbu aaru Jurbel motax ma nawla la tamit lepp loy def suwa ba damay dama damay ñaan yàlla def ko. Mhm. ci côté plan bépp nag. Mhm. ma yaa xam xaw ma xamul. Mhm. man moom lépp looy def soo ba ngoonee damay ñaan yàlla def ko. parce que nag kenn ko ne na si duraade kenn ku nekk ngay roy rek. am tëgg kenn jàngalu ko kenn. kenn jàngalu ko kenn tey jii bàyyi joxuma dépasse joxuma ko dépasse la muy yóbbu këram joxuma ko ko mais yàlla baax na daal yal nañu yàlla defal jàmm rek bàyyi. léegi ñu ànd ak émission bu mag bi ñuy wax seen gan. ñu koy def tey ànd ci ak Xaali joob muy ndaanaan lu mag comme ni ñu leen ko waxee Xaali yéen ñëpp ku ci nekk xam na ne gëm-gëm am na fit wi am na comme ni nga ko waxee te ni nga fi toogee incha allahu bi noonu la ñu fas yéenee bépp ndaanaan buy yewoo njaareem ak li ko wër nga tooge fi noonu ñu waxtaan ak ñëpp tàllal ñëpp suñu micro mais boo xoolee tey. ñun artistes si nekk njaareem ak li ñu bëgg a dund ak ku ci nekk say projet tey jàmbaar amut kuñ dimbale moo am noo gisee suñu diggante ak ñi ñu war a jàppale ak autorités yi ñu war a jàppale. waaw comme ni nga ko waxee rek ñun moom mënuñu dara ay ndaw la rek dañuy doogay door mais fii Diourbel damaa gis ne rarement nga gis ku lay ku lay dimbale. Mhm. faaw nga faayit rek. Mhm. boo faayitee. Mhm. nit ñi buñ la gisee. dinañ la mën a dimbali. mais fii pour pour pour pour kenn jug dimbali la nii raar na quoi raar na. Mhm. maa ngi tàllal ñëpp nag suñu loxo. Mhm. ñu ñëw dimbali géwél ak yi. Mhm. parce que tamit aar bi ñu nekk nii ñun defewuñ ko fenn fu dul fii ñu dëkk fii ñu juddoo fi ñu yoroo. ñun njaareem la ñu am. te fu ñu jëm tamit dan fay def ña fa dëkk sax la ñun dañ fay def. ña fa dëkk mënuñu koo def. te ñu fu ñu dem fii la ñuy tiitaroo fii la ñu am. ñu ngi tàllal loxo ñëpp nag ñëpp ñëw jàppale ñu. maa ngi nuyu nag sama ganaar sama xalifa Mama Diop. Mama Diop borom Espagne. ñu ngi koy nuyu bu baax borom. koy nuyu bu baax di ko dox wàcc waayam di nuyu séeréer Awa Ndiaye. Mm-hmm. Awa Buur Këram. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag sama sama xalifa Ibou ak mm-hmm. bi non kilifa ñoom Mbaye Babacar ñoom Sara. di nuyu Aïssatou Lo. Awa Buur Këram séeréer Aïssa maa ngi lay bu baax di dox sa wàcc waayam. bàyyi fii faaw ñoom ñu ngi jàppale. mais man nag man sama waa groupe ñoo ma jàppale. waa SAF. ñoo jàppale ñoom ñoo may dooleel ku ci mel ne Mbaye Babacar Sarax Mbagnick Ndiaye mm-hmm, Omar Ndiaye docteur Ala Diagne mm-hmm. kooku yàlla moo boole ak moom dégg mi sama rakk bu baax sama xarit Badou Faye borom Touba Ndiaye maa ngi maa ngi man daal bàyyi ñoo ñoo ma jàppale dégg ndongo mbuub sa rakk mm-hmm. sa day jóge Dakar xool bagage lu ci yàqu mu dem jënd indi stop bu ko ne waaw waaw parce que lam du yëngu kon nag sant sa groupe mooy sant sa bopp ndax it kenn rek mënul dara kooku dañ ci ànd ak yow bu baax a baax ñoom ñëpp ñu lu ciy jaare di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu Mama Diop suñu xarit suñu doomi ndey borom Espagne moom tamit ku yàgg doxal aar la mais nag ku ne xam ne ne sabar ci ngay yëngu mais ginnaaw bi nga yëngu sabar ak léegi léegi nit ñi dañu ci boole ay taasu ay kebetu ay yeneen ak yeneen te it nag saxaar bu jugee gaar day corne looy wax tey ñi ñuy seetaan tuuti ñamal leen ci sa baat ah ma jàpp gaam rek xam naa ne dara jegewuñu fii mm-hmm. waaye nag foog ma jàpp ci gaam tuuti ndax nag nit ñi noor ci mm-hmm. dañ dañuy seetaan foog ñu noor tuuti mm-hmm. waa da ciy baax da ciy baax parce que tamit man damay faral di dégg tamit ngay wax ngay wax lu ma ne ba fu may fu may tëgg jee léegi dama koy dama koy sentir sama xol daal loolu mu doon dama koy sentir bu baax a baax baax a baax wax ju bon bu ko tontu da ngay dëkkee jéem wax ju bon bu ko tontu da ngay dëkkee jéem waaye wax su yàggee wàññi bàkkaar àdduna jarul coow wax su yàggee wàññi bàkkaar àdduna jarul coow bàyyi xoolal li la war tey ak mbooloo mi nga àndal waxal ni nga ko bëggee ma defal la ko baay bu fajar jotee ba ginaar yi sab baay waay déggal maam di yeete ba seet na boo yeewoo yema ana lu ko waral lu ko waral xëy ba seet suba julli woo war sa waru waay di dawal di dem Moussa waa ji ma yaa ngi nelaw ba tey xanaa da ngaa fàtte pour yàlla yàlla gëmul nelawul te du jaawale waaw loolu nag bàyyi nekk na loo xamante loo wax ci Wave TV wa ba legi ñi ngi wëyel ak seen émission gan gi ñu and ci ak xaali joom ndaanaan lu mag li ñu invité tay di télé askan wi ñu woko fi tay mu am woyofte bu toll ni wuy ci ñu nak wara waxtaan ak ñun xali tay buñ la doon wax sa aduna lan mo la ci mësa gëna metti ci sa aduna tay loy wax kañ nga tok ba xamne tay ji mom amna nakar mu lu ma metti lool waaw bay lolu lolu damay fàttaliku temps bi ma sama papa yoo koy yóbbu fa national mhm. fa national boobu moom ca aar nag moo tax ñu dem mhm. xam nga sama papa dafa yàgg bëgg yooyu ci xol mhm. yóbbu ñu fa national ñu daje faak nag ay ndaanaan bari mais jour boobu nag laa gën a ah, laa jour boobu dama koy xalaat sax di boobu moom moo may yokk jom ci aar ndax danoo jee ndeysaan ñi ne woon ci salle bi yëpp apprécié joxe mais ñuy siyee ba ci yàgg daal di gis yoo xamante ni fi aar rek xam nga mm-hmm. ñuy tëgg may tëgg ba ci yàgg boobu maa ngi tëggee xiin laa doon tëggee mm-hmm. di tëgg ci spectacle ba ci yàgg sama xiin bi yëpp dem xotteeku xotteeku tereet yëpp mm-hmm. dem spécial jékki-jékki rek mel ni luñ kuppati maa man sabar bu ma jël ci tëgg rek mu dem ci laa mujj wàccee seen bi bàyyi ñu si des continuer ba compétition boobu maa ngi jël troisième te yàlla xam ne ñu ma doon defal ñëpp maa leen maa a foor mais loolu nag moo may gën a yokk jom ci aar damay toog ba ci yàgg di ko fàttaliku sama xel mi jàll. waaw loolu daal métti xaw naa métti ci aar trop moom. nga mës a toog am lu la neex ci aar ba xam ne tey jii kontaan nga tey ci aar sa xol sedd na ci parce que nag aar dafa bëri ay pakk-pakk ndax toujours dafa bëri yu ci nekk yoo xamante ne bii dañuy wax nag ne kun ci tudd rek eggagoo ci fi nga jëm. ndax ki la féete ginnaaw mooy xam sa tànk yi. toujours mooy xam sa tànk yi danga comme ni ma ko waxee nii léegi. waaye nag lépp aar la rek ndax itam amul lenn loo xamante ne bii xëy na sotti kon damay wax tey lan nga toog benn bis nga xool ko ci aar mu leer na tey jii moom am nga ci bànneex lool kontaan loolu xaalis tey boo ko waaw bàyyi loolu sama papa ko defal. Mhm. comme ni ma defalee woon fee la mhm. ma ko defalaat fii. Mhm. maa xëy suba war a teggi am problème mu salaam. boobu laay doogee xam nga rek doo si doogee commencé moom. faaw yi mat yi noonu noonu. man damaa jékki-jékki ak doxali gis sama papa yanu ak coon. Mhm. mbëng mbëng. Mhm. tungal mhm. foo yettu ko yettu ko ba pare de. defal ko foor yu bees. indi ko ci kër gi. wax ba pare nii war a jéggi dam di xalaat fu may jël jëlee sabar. fekk muy ansi moom it indaale ya, ma sabar ya, te ku ne xam ne boo waree tëgg am cóol am um lu mën a tumune daanaka boo xamee sabaru ndeer sax ñun ñun ñoo réewum tëgg rek waaye bu bëtt fa koy xalaat ba ci sama xol bi neex lool mer mer bi sama xol bi da neex lool waaw loolu moom maa ngi baax ci di ko ñaanal rek yàlla diggaloo fanam lool yoreel ay cëram bàyyi ko fii ba ci kanam a parce que bu ne ci bi suñu sama la ngi koy ñaanal defal ko di nuyu ya, sama hmm. yaay Aliou baax mu ne sama tànk Fatia na ba ma kër ga ah aawee ca kër gi yëpp maa waa ñëpp maa lay waaw ba léegi xaali ndaanaan lu mag li ñuy wéyal waxtaan bi di wax ne ku ne xam ne ne aar dafa metti te dafa fiir itam boo ci nekkee ñaare pour nga nekk ci leneen dafay jafe ndax ni mu lay dikke la ma lay laaj ba xam yow aaru jurbel bi tey yéen jeune talent yi nga xamante ne bii yéen a ngi fi nekk te di ko doxal tey ku mel ni yow tey boo ma doon wax ndax yaa ngi ciy gis sa bopp ci walu kom kom lo xamne leer na la ne jaral na la bàyyi metti bu man di don japp ar waaw loolu mom bàyyi amna parce que ar djurbe fi dafa xawa metti te dafa fiir mhm. man mom ar rek lay def mhm. ma ngi ciy sant yàlla bu baax nak mhm. ndax ma ngi ciy sama bop ci la tak jabar yor naa ci sama sama njaboot ma ngi gisee sama ñaari doom macha allah waaw bu baax na aar moom man ah man boobu. Hmm. man maa ngi ciy yëg sama bopp bu baax baax a baax a baax tamit njaareen fi da ngay génn sax ñu hmm. loolu ak sant yàlla ciy sant yàlla bu baax na ñu ngi ciy sant yàlla. yal na yàlla xel doon waaw tey soo ma doon wax ndax itam xaali àdduna nit lu mu nekk lu nekk comme ni nga ko waxee léegi fi nga daaneel fi laay commencé am na ci nangam wala bëgg na ci am nangam tey aar yow loo ci am fii jamono jii ngay waxe ak man ak lan nga ci am yéene am ko ci dégg nga wax bi bu baax loo ci am ak lan nga am yéene am ko ci tey boo ma doon wax tey ci jamono jii ndax nit dina bëgg mais nag yàlla mooy dogal yàlla mooy dogal mais nag loo ci am ak loo am yéene am ko ci waaw bàyyi wax nga waaw loolu loolu loolu loolu am na importance trop parce que tamit ñun lii suñu mëbët ak li nekk suñu xol ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm may ñu fekk ak tal ba li nekk suñuy xol ñu def ko ci aar bëgg nañ ci loo xamante ni tamit waaw mun nañ cee yor suñu njaboot ak fu ñu dugal suñu njaboot ak fu ñuy fu ñuy génn di doxantoo yaa ma gën a xam parce que damay faral de wax naan artiste moom faaw nga boo osé wul moom nañu bëri yoo xam ne doo ko def te doo ko mën waaw moo tax waaw ñu ngi ciy sant yàlla daal hmm. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax baaxam hmm. baax a nag di nekk suñu xool daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu ko ci aar waaw ah, waaw mais nag euh, xaali mënuloo dem te waxoo dara ci suñu tele bii nga xam ne mooy tele askan wi te itam ñu mënoon koo yóbbu feneen ak ci yeneen gox ak ci yeneen réew waaye nag ki ko def def ko lu dul indi ko fii ci Jurbel lu mu wane ne ne lu mu am njaareem la ko yéene muy VFtv kon mënuloo dem te baat bi waxoo ci dara VFtv lu baax dama bëgg nga wax dara VFtv askan wi yëpp di ci jariñu loo xamante ne bii day jàll loolu moom dam ñu koy may. waaw baay VFtv waaw loolu rafet la parce que bu ko neexoon mu bañ ko fee indi. Mm-hmm. parce que ñu tamit bokk na ci li nga xam ne mooy dundal aar Diourbel. Mm-hmm. ñun amuñ lu dul Diourbel Diourbel rek lan am ci la ñuy tiitaroo. Mm-hmm. waaw ñuy wax waa Diourbel tamit. télé bi mi ngi nii. VFtv waaw ñi ngi sant waa VFtv ñëpp nag di leen gërëm di leen ziar bu a baax. waa Diourbel télé baa ngi nii bu ko kenn jéggaani di leen ko seetaan heure bu ko amee ànd ak Baye Serigne ñi nga doomi Baye Salim ñi ngi jaa ngi nii borom Wave TV man dinaa la way dinaa la sant dinaa la gërëm cey Baye waaw nan nan ko ko waaw kon xaal yi ñu mel na ni ñi ngi ci catal émission bi mi ngi mi ngi tàggoo lu nuyoo woon tàggoo na mi ngi tàggoo ñu lay wax ne nit ku nekk nag dafa am ku lay jàppale am koy japp ci say mbir lan ngay tagu tok say xarit ak say am di jam waaw ba ñi ngi sant yalla ñi ngi sant yalla waaw ñi la sant bu baax ñi la di la di la gërëm parce que bala nga xool bañ a def fekk artistes yi bëri nañ jóg waaye xëy bi nga ko day def yalla da sam xeyna ci man ma ci kontaan bu baax bu ci am fierté bu baax ba ma ngi sant bu baax di la gërëm. Mhm. ma ngi waat ñepp nak ziaré waat wa SAF. Mhm. wa génération SAF ma ngi bëgg waat ñepp waaw saf de moom dañoo saf sàpp daal. waaw saf moom maa leen bu baax a baax mm-hmm. sama yaay. maa ngi koy nuyuwaat baax sama papa sama xalifa. Mm-hmm. Maguette Diop. Mm-hmm. di nuyu awoom Dieynaba Diop. waa Ndiobène ñëpp maa leen di ziar baax jeeg ca kër ga ñëpp maa leen nuyu baax ñoo seen wàcc waay maa ngi sant nag sama jigéen. sama xarit maam Diarra gay daf may jàppale bu baax. kooku yaa faamu mooy yaayam baay si liggéey mooy papaam. maa ngi koy nuyu baax di ko jox wàcc waayam. di sant waa kër bu mag ñëpp. waa kër sëñ Mbaye Sarr wa ASC Ñaay wa ndof nan wa pap ñëpp ñep ma leen di dal di nuyu Aïssatou Lo Séeri bu Sàmm Cheikh Fall Alaaji Koora sama xarit ma leen nuyu ñoom di nuyu sama papa Modou Mbeng sama khalifa sama xarit ma ko nuyu baax di nuyu yàmbaat yaay ala jaay sama xarit sama rak moom ma ko nuyu baax baax baax mer Thiéna yaay Mbañik jaay ma ngay koy bu baax di ko nuyu ma ngi béggee kep kuy béggee wa sam dal ma ngi lay nuyu di leen jox seen wàccuwaay kontaan nañ bu baax nag waa mais di wax ne jërëjëf ñi ngi nuyu askan wi yëpp di nuyu waa njaaram yëpp euh, di nuyu ki ñu woon tey mu wuy si ñu am woyof tegu wuy si ndax nag rafle du mbubb ak tubéy rafle mooy xew la gisoo kenn suñu woowee tey suñu invité mu nangul nu wuy suñu muy xaali Jóob mbokkum ndeyu mut Jóob mu baax mi mu ciy jaare di ko gërëm bu baax a baax waaye yow xaali ñun ñoo la war a gërëm ndax nag bin la wooyee wuy si nga ñu di wax ne nak tay yene ngi andon ak seen émission bi ñi wax euh, gan gi gan gi nak na ci jurbel kan moko fi indi moy télé bu mag bi ci ci ci ci image bu rafet bi muy TV nga xamantene bi image am wu ko fenn lu dul askan wi waye nak mi ngi ko samp fi ci njaareem ñi wax ne nak télé bi ubbil na ñepp ay portam émission bi nga xamne tay mom la door tay don ko def and ci ak sama rak moy Xaali Diop ah émission la bo xam da daf nek pour artiste yépp di wax ne kep ko xamantene bi beug nga ci participer man nga ma wo ci 77 668 32 02 soo ma ci woyé ci nu yalla dinañ and jëflante ci ah ndax nak bu donto nak ñi ñi takal ñi balé duñu fayiko kon nag VFtv ca kaw ca kanam ci lu baax waye nak ñi ngi ubbil ñepp suñu porte di wax ne amul xajj amul sen artiste yépp lañu ñu dalal ndax nak télé bi sen télé la ndax ma yemoon rek kuy wàlliyaan sa dëkk teggul te wax dëgg yàlla njaareem tëgg na ndax ki nga xamante ne bii moo def lii tey bu ko neexoon yóbbu ko feneen may nag defu ko fenn kon nag loolu mi ngi wane ne àdduna yàlla na ci Afrique ëpp jàmm bu ko ci Afrique ëppee yàlla na ko ci Sénégal ëppalee waaye bu ko ci Sénégal ëppalee ba noppi nag yàlla na ko ci Jurbel gii ëppale Jurbel suñu Jurbel la bu baaxee ñun la baaxal bu yàqoo ñun la yàqul kon nag ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla na ko baaxal mu baaxal ko nag ndimbal na ca fekk loxol borom ci ñun la mën a jaar kon nag ñi ngi woo ñëpp ci télé bi kuy publicité kuy def émission ku am màggal ku am ngénte ku am ceet ku am ay jàng lu waaye mën a am lu nekk soo ñëwee ci VFtv ni nga ko bëggee dinañ nu ko defalee kon nag waxal ni nga ko bëggee ma defal la la ko ni nga ko bëggee merci.